وجللاي مسكني توبابات مثلك ما بجاي خير ما نبات دلو واتكو دلو واتكو سرين بي سرين بي di wax rek ne touba ca kanam ngi Bin biñ ko woté dañ ne bëgg nañu am ñaari millions ngi murit wéru dé kenn ku nekk ñuy man di am ñaari milliards par at ba par weer man di am ñaar fukki milliards ak ñeent par at loolu bi ñu ko tàmbalee léegi wax naa ko léegi ñoo ngi ci ñeenteelu at bi fiñ ci toll boo ko doon xayma mooy téeméer bu ñuy wut bu nekk ñoo ngi tollu ci diggante juróom-ñaar ak juróom-benn genn wàll 6 virgule 5 pour cent jàpp 7 pour cent foofu lañ toll ci li ñuy wut mu mel na nag li xew fi mu ne nii ab soññee la li xew tamit mën naa wane ak dalalum xel ci ne lépp loo xam ne dëkk bi soxla na ko taalibe Serigne Touba yi bu ñu takkatoo mën nañ ko def ci anam gu yomb ndax lu tax loolu mooy euh, bu ñu xoolee àdduna bi ni ko suñ borom séddalee japon yi suñ borom da leen jox technologie arabe yi mu jox leen pétrole européens yi mu jox leen organisation ak tegum pexe ba mën a dund ci kaw nit ñi américains yi mu jox leen ak bennoo ñu créé état fédéral boo ñëwee ci Sénégal da ngay laaj lañ lañ lañu suñ borom defal suñ borom dañoo jox Serigne Touba li nga xam ne lépp yàlla séddale na ko ci àdduna bi da koo dajale jox ko Serigne Touba li tax loolu mooy bu dee technologie bu dee pétrole bu dee organisation bu dee ak bennoo mooy li Serigne Touba doon jàngale mu tënk ci ñetti baat baat bi ci njëkk mooy yëg-yëg ba ca topp mooy pas-pas bu ñeenteel bi mooy yitte te mooy bu ñetteel bi mooy yitte ñetti baat yooyu mooy baat yi nga xam ne moo tënk yoon wi te mooy yi Touba ca kanam di doxee yëg-yëg boobu ci la ci la ñu wootee liggéey bi bi nga ko wootee ku nekk ci ñun da nga koo am yëg-yëg wuy si ko bi nga ko yëgee wuy si ko pas-pas moo la ciy bàyyi waaye yitte nag mooy tax nga sax ci loolu moo tax ñu ne jaayante bi ñoo ngi gërëm ñëpp ñi ci joxe waaye li ëpp solo mooy nu fexe ba nga xam ne kenn ku nekk ci mboolem taalibe yi da nga jël engagement da nga amuk dogu ci ne da nga sasoo nangam ca la nga man weeru dee nga matale bu ko defee loolu dana tax bu ko defee loolu dana tax lépp loo xam ne ñoo ngi koy ñeewe ab dëkk fu mu mën a nekk ci àdduna bi moo xam borom pétrole la wala borom technologie wala borom leneen ñu mën koo indi dëkk Serigne Touba yi mu ne fi Serigne Touba amul morom ji ñuy wax dana jóge ci ay wax ci lu leer ci àdduna bépp jàll ci ay jëf ndax naka jekk mi ngi ci ay jëf waaye daa jot nag ñu gën ko yëkkati ba Serigne Touba amul morom jooju sës leer nañ ci ay jëf rawatina Touba ci kanam bi nga xam ne ñëpp bokk nañ ko kon wax ne liggéey bi biñ ko wootee dañu seet né mbedd yi nawet bi magal gi mi ci bir nawet magal gi moy ndaje mi ëpp solo ci Afrique de l'Ouest wala ci aduna bi sax bu la nexé gannaaw Arabie Saoudite Makka ta magal gi bu ñëwé xat-xat lay doon ak jafé jafé daaw ñu tambali ko def ci liggéey yu ama am solo biñ ko défé ren jii nañ ñu né nañ ci téla a djublu jublu ak borom xam-xam yi ñu wacc dem ci dëkk bi xol saytu jangat daal di ci xayma bu ñu amee cent 350 millions xayma jëm koon natte ci tolluwaay bi ñu amoon waaye nag moom mel ne dañ cee sóoraale woon ne danañ ami jaayante ñu ne kon nañ ca tàmbalee bi ñu wootee jaayante bii ci ndigalul sëriñ bi gis nañ ne liñ ci doon wut faw xanaa romb na loolu nag day joxe tegtal ci ne liggéey buñ tàmbali la waaye du yamati ci nañ ko xalaatee woon ndax bu yokkoo dañuy yokk ci biir loolu nag kon ci la ñuy wooyee bépp borom xam-xam bépp borom xam-xam borom xam-xam yi dañuy faral di wax ne liggéey yu mel nii ku koy tàmbali da ngaa war a def ay étude euh, préliminaire jaarale ko fépp balaa ngay tàmbali waaye liggéey liggéey Touba ca kanam bii nga xam ne ñëpp nangu nañ organisation organisation bi ci nekk ñëpp nangu nañ transparence bi ci nekk biñ koy tàmbali amutoon étude te bu fekkonte ne dañ ko waroon a étudier def ko ci ay document teg ko doo a tàmbali kon nëgë ni tàmbalee kon ab liggéey ay coow murit liggéeyu sëriñ bi da nga naan bëre départ ànd ak ña ngay àndal xam ba dab ko ñu ànd di nos di liggéey di dem ñu ngi ci woo borom xam-xam yëpp ñu ñëw ànd ci liggéey bi jàpp ci ngir lu ñu bëgg ñu mën koo am xam naa lu jëm ci leeralub liggéey bi sëñ Abdoulahi Mbacke moom sëñ Dame Atta mi nga xam ne moom moo mooy coordonné projet bi dina ci dina ci dina ci gën a ñëw indi ci indi ci ay leeral waaye ñu bàyyi xel ci ne daal liggéey bi tey lay tàmbali jëm ba abadan fan yii nag bi ñu tàmbalee jaayante bi di defar ay affiche di ko publier am na ñennat ñu jàpp ne am na ñennat ñu jàpp ne loolu waruñ koo def ah kay lu tax ñu war koo mooy joxe ñaar la kii joxe mën naa nëbb kii joxe mën naa feeñal la muy joxe waaye la ci am solo mooy ab xolam jubluwaayu xolam lan moo ca ne loola mooy la am solo la ca toppat ci Touba ca kanam mooy Touba ca kanam day soññee ba Touba ca kanam tàmbalee ba tey képp ku mas a joxe lu mag siiwal nañ ko li ci topp mooy ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon daan joxe ñaari téeméer mooy ñiy joxe tey jii di jaayante waaye mooy ñoo jiitu woon am nañ tawféex yu bëree bëri bi ci njëkk tawféex yi liggéey yu am solo yëpp ñaare buñ ko woowee buñ ko wootee ñi ñu jàpp ne ñoo xaw a gën a néew doole ci wàllu am am ñoo cay jiitu te loolu feeñ na beneen bi ci topp tamit ñoom euh, mooy li alxuraan di wax ne ulaayika yusaarixuuna fil xayraati wa hum laha saabixuun mooy ñoom ñi nga xam ne ñoo jiitu ñoo njëkkante yiw wa te ñoom ñooy jiitu kon ñu joxe ñaar téeméer ñoom ñoo dalal tey ñu ñëw di jaayante ñoo leen dalal kon ki daan joxe ñaar téeméer bu mu jàpp ni mukk dañ koo ginnaawal ci lii ndax kat lu mën a xew jaayante yi am na solo mu ne suta lim ñu jaayante ñëpp ak Pastef bañ ko jaaree waaye li ëpp solo nag mooy ñu saxal pas-pasu weer wu dee danaa joxe nangam loolu mooy tax ñu mën koo nos mooy tax ñu man koo organiser ba nga xam ne lépp lu ñu yéene ci dëkk bi dañ ko mën a liggéeyal sëriñ bi di jeexale nag kàddu yu cant jëmee ko ci mboolem waa Touba kanam boole ko bu ma nee waa Touba kanam gàll na ci ñëpp teg ko ci loxob sëriñ Abibulahi Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi sant bu baax a baax alaaji sëriñ Tàkku Mbacke sant sëriñ Abdoulahat Mbacke moom sëriñ baax di leen gërëm ndax ñoom ñooy kaaraange ak liggéey Touba ca kanam liggéey bi fi mu àgg tey ba nga xam ne bi ñu doog a tàmbali njabootu Serigne Touba gi ñi ci ëpp ci ñoom yëkkati woon nañ ci kàddu soññeeku loolu bu ko Touba ca kanam mënee am Serigne Abibou mi nekk ca bopp ba ànd ko ñi mu ko àndal moo nu ko may mm. noo ngi koy sant bu baax Mbacke di ko jaajëfal di ko gërëm waaye di ko jéggalu ci turu mbooloom yëpp di ko jéggalu ñoom kilifa ci turu mbooloo yi ndax nun ay donga nag bu ñu mënee ànd ak ñoom ñu wàccee seeni daraja ba tolloog ñun ñuy wax dinu jox ñuy wax di leen delloo ci liggéey bu dañ moo bëgg a waaye loolu waruñ ko woon a ndax bu ñu suñuy nawle ci genn anam kon ñoo ngi leen di jégalu jamono bu nekk di leen dogal ngant di leen ñaanal wér gëram a gudd fan di sant ak jégalu waa Touba ca kanam yëpp di ñaanal ñëpp ndam di wax ne ñoo ngi wàccee foofu kàddu yi wajalilaahi maskani tubabat misras mi abi jaayi xayri ma nabaat